bokk jullit yi bokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bokk yi bu ngeen gisee sunu jataay bi ñu toog ci kanamu sunu jëriñ ji di sëriñ bu Mbakke moom sëriñ Falilu di jëwriñu tubaa ca kanam mu dendanteeg mbokkam yu baax yi nga xam ne naka jekk ba liggéey bi dooree ba léegi ñu ngi ko ànd ak moom sëriñ Cheikhouna Mbacke Doyoly sëriñ Cheikh Mbacke Omar sëriñ Fallou Bousso ak mbokkam yu baax yi nga xam ne ñoom lañ toogal sëriñ bi ni mu ko baaxoo di def rek waxtu wu nekk ci slogan wu Touba ca kanam boobu nga xam ne nii mooy laaj nit ñi lu ñu mën di ko def fu ñu xam tey di fanweeri fan ci weeru décembre ñu fas yéene indi ay leeral ci li nga xam ne jaar na ci loxoom ci ay ñaari téeméer ci seeni ñaari téeméer mu wax leen limba nu mu toll la ca génn mu wax leen ko tey jii fi ñuy waxee ci waxtu wi tembe li nga xam ne moo nekk ci keesu Touba ca kanam di seen ñaar téeméer yi ba tey sëriñ bi fas yéene indi ay leeral jëm ci loolu kon nag ñun ñëpp dañuy maase ànd déglu ko ak soññeewaat gi nga xam ne nii dina ko soññee ni mu ko baaxoo di def ci ñi nga xam ne ñoom la bokkal pas-pas te ba mu ko waxee léegi nag nit ñi di ko wuyu si boobu ba léegi kon sëñ Abibu ñu ngi lay déglu bismillah. ak sëñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sama bokki julli yi bokki taalib ngi leen di nuyu kenn ku si sant te tàmbalee nuyoo bi ci saahibul fadila Cheikh Mamadou Muntaxa ayyadahu llah wa nasaro ak jaboor sëñ Tuubaa gépp la ñu ko bokkal ñëpp si ak sëñ Tuubaa yi taalib yi yëpp. tey jëg ñoo ne fii ci Touba ci kanam ngir leeral loo xamante ni nihaayatu sanad bi mi ci nekk muy at mu 2019 moo jeex ñu war a dugg at mu bees mi di 2020 ah ñu woote woon ngir Sëñ Touba nit ñi ngeen wuy si ngir Sëñ Touba ñoo ñëpp ñu sant dina gërëm ah, nag bu dañaa dénk liggéey di ko saytu lu ma fukki weer yaar ñëw nga teewal wax la jaar ci yow aram jaare ci na anum génn ci loolu moo tax ñu ñu woote woon bokk sama bokk yi ma tegal ñu kii bi sax ñëpp ñëwuñu waaye ñi ñëwut ñu ñëw ñi ñëw teewal ñu ñëwut may santaat bu baax ci delluwaat ginnaaw tuuti la ndax bala maa wax li ma li ñu war def leeral li ba noppi may sant euh, ñi seqatuwaa ci kanam ñëpp lii de yi jàppoon na ne ñu seen nii bett nañu lool ndax dañoo woon ku bokk pas-pas nekkatu woote ñun am nañ ñoo xam ne ay murid yoo xam ne bokk nañu pas jàpp nañ ne day suñu pas xeebu bi ak bu nekk bi doodo bi jàpp nañ kenn duñu fekk waaye alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf Sëriñ ki waaye lii moom koo xam xam na si njëriñ la xam na Sëriñ ñu woote ko démb rek te soxna bintu moom Sëriñ Abibullah ak ay rakkam soxna Fajje moomee ak euh, soxna Njaxate euh, mu Seex Abdul Ahad soxna ñoom ak euh, ku mel ne soxna Safiyatu mu Seex Axmadu Basiir ak ku mel ne soxna maam Mbay soxna monsieur Bindu Sarr ak ak mbokk yi fi teew yëpp waaye suñ suñ na fi doomam gi démb te may bokk na jiw yi ñi xam ne ñi ñi Touba Ca Kanam ñor la bokk ba woote na njabootam yëpp ñu tàbbi ci yabal na dem suñu soxla doo moom mu teew fa kon loolu lañ ko leeral démb nag jotaay bi wax yàlla li ñuy wax àlla dawme la def suñu xol yi sëdd ba bañ dem suñu yoon ba téyuñ ko ndax lu waral loola Fallou Gallas dafa wootee ne na njaayante njabootu Sëñ Tuubaa gi jiitu mi ñi jóg ku ne naa maa maa jaa maa jaayante bàjjen diw kii naa bàyyi maa jaay bàyyi diw te ñooñu njabootu Sëñ Tuubaa lañ di ay ay ay tuut-tànk bi yoo xam ne teel dañ ki ndaw te mu wóor nañ ñoom ñoom buñ tegoon buñ fi teewoon Sëñ Tuubaa woote woote bi dañ ci bokk si kon mu di jaayante loolu muy lu ñu yëg marqué ñu loolu ba démb maam toll nañu ay ay xéwal yoo xam ne ndax ndax ndax ndax loolu daal ci ñun euh, dafa am suñu maam ju baax ju ñu xam ne soxna Awa Boussa dafa am bis sëriñ bi yoo ko ko sa awa mu ne ko mbàkke mu ne ko sa baay di mu ne sama nijaay suñ bu soobee noonu la ko bi waxee nee sama nijaay suñ bu soobee nee na daa amee sa ndey alal nee naa ko fayal yëkkati alal ji jox ko soxna Awa Boussa ne ko am sa ndey sa bàyyi ko fayee sa ndey soxna aw mu ne ko jébbul naa ko sama ndey ndax wóor na sa bu fekkoon da dañ koy si kon loola bu fekkee ñoom ñekk bar sàq ñi ngeen jaayanteel kon alhamdulilah rabbi alamina ndax jaayante ko rek am solo wóor nañu ni lañ jëf démb ñu ja ñooy tëj ba sàq yéen nañu ne dugal nañ seen liggéey ci Sëñ Tuubaa man damay def saa bu may dëgg ma dëgg Sëñ Tuubaa bi doo ko dëggale doo ko moom ndax suñu biir waaye danañ ko joxaat addiya moom ci boppam moom ci boppam mu joxe addiya ci boppam mu Sëñ Tuubaa ndax moom ci boppam day jox boppam addiya loolu da daan ko lay nur rek waaye nag waaye maam ba gim bëgg lu baax ndax dafa wax ne mas naa woo ay ay leeram lu mel ne Cheikh Amadou Moussa ak Cheikh Amadou Fadi tool wut lu mel ne euh, ndab defal lu mel ne euh, ab laax di ko defal ba ndab mu xam ngeen lu ma jubloo ñu ne déedéet mu ne mu ne dama dama sama borom damaa xam ne ku liggéey jëmm ji yàlla fay ajoom ma bëgg sa jëmm ji ma ko mën a xaaj ñaari jëmm jëmm ji liggéey liggéey jëmm ji moo tax ma ne defal lii te ma xam ne yéen ci jëmm ji ngeen joxe ko moo tax kon liggéey suñu tuwaa jubul kenn ba tax ñi fi jaar ñëpp ku jóg xantiwoo lenn lu may liggéey suñu tuwaa kon liggéey Sëriñ Tuubaa moom am na tàmbali waaye amul yomkaay ah bu loolu wéyee ma dikk ci leeral di fi jaar fii ndax la ma ñoo waxoon ne nañu nañu laaj bi man di ko def nga xam ne murid bu nekk na jaayante Sëriñ Tuubaa joxe ñaar téeméer par weer bu ñu ko xoolee mm, weer yi mi war nekk euh, ñaari milliards bu fekkee am na ñaari millions yi amee euh, at mi ñaar fukki milliards ñeent lay nekk te loolu dafa ne ne koo xas am loo bëgg ci àdduna mën nga ko am fii fii nga xam Dubaay nga xam dañu ne àdduna daa ko moo dàq fii ne war ko mën dàq war na ko mën a dàq te loolu ay nit rek ko def te nit ñooñu ah li ñun li am ñoom amuñ ko nit ñooñu li am amuñ ko ñoom ay tax seen teg seen bopp ak ak ñu waaye ñun nag jaayante lañ def te jaayante ëpp solo ndax li nga def nga xam ne kenn santuloo ko yaa jékki-jékki xool sa jigéen sa yàlla rek jaay ko jox ko Sëriñ Tuubaa loolu moo ëpp njëriñ ñëpp kon ne du waay mel war ko war ko mel wala mu dàq ko sax ndax Makka Madina mu ko tuddee dañu mel ne gam-gam le Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa mu mës a gam-gam dara moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam daa nekk rek euh, jaamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam jox ko léppam ni wana xaddi wi xayatun rijil mujtaba an sawkati waaye daa xarba kooku ci boppam kon kenn ko tudd tudd kay kon kon maanaam na mel ne na mel na mel ne Dubaay rek nga xam ne moom ci rafetaay ci taaru àdduna bati moom moo dàq moo dàq fépp moom waaye bati saayir bi war nañ ko defal noonu euh, tuwaa yëlawut ni mel mbat yu taa tuwaa yëlawut euh, salte bi fi ne war na foo neex tuwaa lañu wax de saay ak ak garab ga fa sax ron garab ga daa war a set daa war a sell war a leer kon war nañoo ci làmp yi mbedd yi ñu euh, gorro yu mag yi euh, mbedd yu ndaw yëpp ñu ñu ñu karraas ko maanaam ñu wax euh, pawaas def ko loolu mën naa nekk nga xam ne foo jot ci foo am murid mën a taxaw rek bu bu waxtu julli jotee a taxaw foofu julli fa te du am benn jafe-jafe te loolu insha allahu taala ci àgg yàlla ñu xam man murid yi man ma leen fay sama bopp laa leen fay rek maa ngi nii li ma la yéen daal yàlla naa ci jiitu yàlla ma fay yàlla fay murid yi rawatina ñi ñu tuwaa ci kanam nag ñooñu moom moom yàlla rek laa ne bàyyi ñu fayal ba leen sëñ Tuubaa daal moom lépp loo may defal defal ko murid yooyu ba noppi képp ko xam bokk ni Tuubaa ci kanam sa sa sa sa sa sa sa sa ci sëriñ bi na nga faj aajoom te mu sonn mukk ci àdduna na nga gàttanoo yërmande nga gàttanoo teraanga ah, bu loolu wee ñu ñu ñëw leeral li fi dugg def li dugg na nañu wét lu ñu wét décaissement la boo xam ne lépp lu fi dugg dañ naan mi ngi nii léegi lii 4 million set 700 mille décaissement baa ngi nii fu mu jëmoon C C3S la ñu lu ñu ko doon jënd bu taal millions yi defe naa bi nga ko estimé ëpp a na 6 millions suñu sekk wàññi ko 10 pour cent wàññiwaat ko encore on est suñu toll nii décaissement bi dañu may indil boobu ñu ko defoon le 20 août 2019 di décaissement bu ñu ko indee dañu dañoo ci décaissement bi ko yem ci damay indi chèque bii photocopie chèque bii a ngi nii 4 millions 700 mille yaa léegi loolu lañu loolu lañ lay topp di ko topp di ko topp ba at jeex waaw ba at ma war koo leeral murid yi nee na kat banque yi di fi jaar du caggéen may desaay naan mois de janvier dox nañ nanga loolu waxoon nañ ko fi dafaa ñëpp déggoon nañ ko tim ah waaw waaw waaw mii nii loolu leer na mois de janvier euh, le table janvier ba le 31 décembre tey jii <coughs> li fi dugg mois de janvier ba kii nekk na million millions 934 mille quatre-vingt cent quinze francs ma baamuwaat ko huit cent vingt-trois millions neuf cent trente-quatre mille loolu ma dugg ci Cheikh ma dafa leeral waaw waaw mi ngi nii waaw loolu dugg na fi moo nii léegi li nga xam maxraj mooy li génn li génn di génn nga xam ne jaar na ci mooy décaissement muy kii yi nga gis nii nga xam ne ko bind ab chèque euh, def décaissement indi ma ko ma signé ko chèque yooyu génn te chèque yi juróomi signataire yi am maay mujj signé Euh, bala maa seenti nañ may décaissement indi ma ko ko li la li xam ne génn ci moo ngi six cent vingt deux millions sept cent trois mille sept cent trente quatre mille cinquante francs loolu moo ci génn nga xam ne euh, seeg yi mooy mooy kii yi mooy neex ngeen wàññi ko wala ngeen yónnee ay ay ñu wàññi leen ko xool ko lii daal lañ ma bind jox ma ko ma woo ñi nga xamee ne ñooy administration ba ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu dajalaat ko euh, wanaa ma ko yónniwaat ma ko nii kon nag nga xam ne si tey bii le 31 décembre ci fii jamono ñu toll bi ñu nekk 5 heures lan heure bi jot ah 18 heures waaw 18 ah. maa nga xam ne juróom euh, juróom-benn waxtu yàlla fanweeri simili euh, li ci nekk ci keesu Touba Ca Kanam nga xam tey jii bu si mën a xaaree woon nañu ko jëri mën nañu fëgg banque yi ñu indi ko bu soir ndax fermé nañu marab yi des na 543 millions 953 mille 840 francs 543 millions neuf cent cinquante trois mille huit cent quarante francs loolu nag bu ñu ko waxee am na mois de décembre dugg ci dugg ci des na ndax am na lu génn loo xamante ni mi ngi ci sànc yi nga xam jël nañ ko ba ki démb te te te euh, comptabiliser ko waaye dafa jël nekk tey tey tey yi nga xam ne moo nekk suñu loxo mooy lii loolu see Amar danaa ko jox mu leeral ko euh, ci làkk olof mu gën maa leeral kii li tax ma ko wax ci nag euh, ndénkaan non sama ndey bi daa wut sama càmmoñ bi damaa bëgg lépp lu ma jox rek mu leeral ma sama dubaara ndax defe taxawee loolu waxuma ko waxuma ko ngir bàkku waxuma ko ngir la waaye la wa amaa bi ni'mati rabbika fa haddis la yàlla wax bu ñu la xéewal nga santee du sama jub du sama baax waaye damaa jaayantoon bi si karo ba ñu dugg ci liggéey bii ne duñ ci war Sëñ Tuubaa fa suñu def lenn loo xam ne euh, accam da ci am jaayante woon nañ ci wax ne Sëñ Tuubaa bi suñ ci nawet benn benn dërëm bu ko ci nawet jëfandikoo suñu jëmm ji murid yëpp dañu ajjee ñu sawar bañ naa ko ba bi suñ ba bu ñu def réunion wala de man kafe ge waa Tuubaa kanam tàngal ak ndox mi ñu naan tim ma arab ko saa bopp toogee tim naa toog xool diggante booy jógee tim naa xool xamante wan ventilateur yi upp nañ ko muy muy muy muy énergie boo xam ne Tuubaa ci kanam moo a fay ci xaalisam ma génn doon dañ 1000 ko ngir bañ a jël aqi Tuubaa ci ndax damaa xam ne ci xam naa ko am na ñoo xam ne wóor amuñ ko waaye bëgg Sëñ Tuubaa rek tax def ko ñooñu nag kon kuñ digil sa kanam man am naa problème bu rëy waaye nag ma ñaan ak yàlla su ma dimbali ma ba bu buñ càq buñ càqule euh, buñ seytaane mën itam nag te na ngeen ñaanati mu gis bopp mukk. soo ko turee nii tem sax ñi ñu jàpp ne xaalis baa ngi kër gi wala maa ko denc ab dërëm bu soo ñu laal jëmmi laal xaalis bi sama ko araamal bopp ku dikk dama jox dara am nañu yaay ki eh, ci kër gi su dikkee jox leen kooku boo laal xaalis bi suñu Muntaxa xaalis bi mu indi woon un million deux cent millions indi woon ne juróom-ñeent fukki million juróom-ñeenti mu jox Moussa Diagne ne ko indi ma ko indil dama ko mu ko laal dama dugg ci kii ba te weer si ko tey yëg ko ëblusiam benn dërëm musuma ko laal du ma laal tey du ma laal ëllëg nag ndax damaa bañ damaa xam xaalis daan niin te ndokk raay dañ fi bari loolu waaye benn dërëm benn dërëm seex kii kii doog laa yor nag na leer ñëpp benn benn benn déet bu kenn sàmbayaan ñëw maa nag boo ti waaw góor yow yow dimbale nga ma ndax dafa am lu xew ci biir daa am lu xew ci biir loo xam ne fii ne Euh, Touba ci kanam ci boppam damaa togg tuuma tuuma ji ma togg mooy ñu bare bëri jàpp nañu fi ne Habib Mbacké ab yaar fi ne saa ma xëyee kër gi di fees dañu rang sama ordonnance sama nang man waaye yéen man maa man tukkiwu ma maa ngi toog di mu fenn béy naa ko sama mbéy gàtt la dara uma ko dama yowlaa ne yéen jur ma dara Touba ci kanam na nga xam ne ab dërëm Habib Mbacké tëriwu lañu ci lu xas dugg ci kees gi dugg na ci may soññaat ci nit ñu góor góorgóorlu ci social bi social bi tamit am na maanaa lool liggéey liggéey dëkk bi am na solo waaye itam liggéeyal njabootu Sëriñ Tuubaa gi am na solo solo social bi bokku ci xaalis Tuubaa ci kanam moom waaye waa Tuubaa ci kanam ñoo ko yor waaye da kenn ko na nga jaayante euh, weeru dee nga rek ci la man jàppale ko jànkate alxuraan yi jàppale ko suñu daara yi ndax Tuubaa ci boobu daara yi waruñu yalwaan ci ndax comme bustaani kitaab la waxoon alxuraan mooy sama tool kon ñëpp kenn ko nga xëy ci tool Sëriñ bi ña cey xëy nga xam ne amuñu xëy amuñu wante nag ñooñu ci ñoo war a gàddu seen lépp ci ba buñ mënta yoon lépp lu jëpp ci ci ci ci ci seen dund ñu kàddu leen ko ak seen seen seen i cosaan waaye yéen ñi nga xam ne yéen encadré ànd na ma ci liggéey bii dina mottalil sant naa leen gërëm naa leen sëñ bi maa ngi leen ñaan baax yàlla ngeen gërëm sëñ Tuubaa ngërëm sëñ Tuubaa rek ñëpp moo moo moo tax ñu daw duuti ku xas ab am nga àdduna alaxira te mooy jël fa fara jël fa fara nag moom dañoo xam ne aw rab boo xam ne boo ko boo ko dàqee ba jàpp ko boo ko reyee ba xar biir ba la nga bëgg àdduna alaxira ci biiram kon yàlla ndugg bi jël fa fara Euh, di ñaanal sëñ bi Muntaxa yàlla yàgg ko fi yàggal fi suñu jëwriñ bopp sëñ Abou Baraka ak njaboot sëñ Tuubaa gépp si par weer ndax ñoom nañ na nga xam ne noonu dépasse kër seen kër a nga ah, ci mën a mën a mën a doxal nga ci nga ne ko dee mën a fay bor bi donte at wala ñaar at nga fi nga génne ko fay ko mun a tàmbali tey bu mu dakkati nag moom at àpp na ci moom nga bàyyi ko moom sax seeti keneen <laughs> moom moo suñu wàllu moo suñu soxla man ne yéen da ngeen da ngeen da ngeen war aw yoon waaye murid yëpp la ñu wax ñun ci jox nañ ñi nga xam ne ñooy seen jëwriñ sëñ Tuubaa seen bunt jaar dañ jox seen jëwriñ ci ñoom jox nañ képp ku ndigal kenn ku nekk ci ñun weer na ko joxe ngir sëñ bi ko bëgg yëkkati mu yët ma ko te amul may mille francs donc ba ma ko yët ngi daal dong jox ko def ko ci waaj kanam loolu yéen ñëpp am ngi ndigal laa wax noonu man def naa ko waaw ndax euh, yëf mbir boo ku jiite war a ñemee gën a xuus wala gën a ñemee nangoo dékku euh, yay yay dal si kaw euh, man na kon maa ngi waata murid yi wax waxuma doomi murid yi képp de murid yi laa woon ak man doomi murid ak murid bokkut murid day jëf sama baay baax sama maam baax na waa sa baax bopp yow sama ajoon naa daaw doo aja tey di xamee su ko kon na murid yi jaayantiwaat yëkkatiwaat seen addiya jox ko Sëriñ Tuubaa li ñu bëgg mu am ko dëkk bi kenn état bi duñu yore mukk ci àdduna ndax bëkk de mu ngeen ubbi fii ñuwaay ñuwaay wee fi ñu ngeen ubbi ngeen université yéen def kenn du leen dimbale nañ ko xam amuñ ko lu ñu dimbalee ñun ñoo leen war dimbale waaye kenn waruñu dimbale suñu tuwaar kenn tàll kenn loxo yadi li muxnin karimin naafi'in samadin laa li daraahima taatihi min laa amud yadi ila nasara abidi maa wa tiini kooku kon yàlla rek lay tàbbal loxoom kii xam yàlla nga ngay tàllal sa loxo nag kon buñ tàllal doomu adama loxoom ñun contre ñu état comme bu état ak lépp ci am ñun daal lañ liggéey suñu Tuubaa lañ liggéey rek te te namoo ndax xam nañ ku ku suñu daal dimbale ndax euh, lu càggee da bëgg liggéey suñu Tuubaa rek tax nga liggéey ko déedéet moom moo dimbale boppam rek ndax man mënumaa woo kenn wuyu sama doom ji sax ko wuyu si waxuma keneen kon nag bu wooyee murid yi ñëw suñu rek boo woo man wuyu si wuyu si yóne ngeen wuyu si